boo xam ne sama xol laa ko tibbee jëmale ko ci xalif bi di Cheikh Bekay Kunta ak jëmale ko ci njabootu alkunti wi yëpp dafi teew am naa mbégte bu baax a baax sant naa it suñu borom subhaanahu wa taala bi mu la mayee yéene bi ma ci njaasaan xëy na ci tàmbali mu may ñu mottal yéene boobu ci bërëb bii di résidence Cheikh Bou Mouhamed Kounta ah, ma jàpp rek ni Sénégal réewu diine la diine dafa am solo trop muy diine l'islam bi gën a yaatu muy diine chrétien booy xayma téeméeru sénégalais yi ne daanaka quatre vingt dix yi ay way ngëm la kon état bi war na mën a jàppale diine yi te bañ di dugg wala di dugal loxoom ci doxalinu diine bi lu jafale nag waaye noonu lañ ko war a jàppee maanaam doo gis mukk ci sama kilifteef ñuy dugg si biir kër yi di xool nu muy doxee ku war a togg ku war a def lii wala ku war a def la loolu du cëru état waaye cër bi mooy jàppale diine ji jàppale famille yi jàppale taalibe yi ngir dëkkuwaay yi ak barabu dalukaay yi ndegam ay doomu aadama yu takku ñoo fay daje at mu ne wala jamono diir ñu fexe ba gox yi am ay màndarga yoo xam ne dana yëkkati lislaam d'abord te dana ko taaral lii mooy programme bi ma def jëmale ko ci këru diine yi bàyyiwu ma ci katolik yi ndax fi nekk Popenguine maa ngi koy tàmbali liggéey ngir ñoom itam ñu am dalwaay bu am solo bu am màndarga ndax la fay daje bari na kon dafa nekk cër boo xam ne dañ ko jagleel diine ji li nag Njaasaan yelloo na ko def naa lu mel nii tey jii pare na ci Laayeen ci Ndakaaru def naa lu mel nii ca Kaolack nga seen ca Medina Baye def naa lu mel nii fii seen wet ci Tiwaawan Touba def naa fa yeneen liggéey xëy du bâtiment yu mel nii waaye am na ay cër yu ñu fa def yu am solo ba si seen jumaa ji nekk ndakaaru ci wàllu guwaar pour accompagner effort yi nga xam ne ñoom def nañ ko en tant que communauté mouride def naa ko Medina Gunaas ngir yombalal leen Dakar bi ndaje ba ñuy am def nañ ko feneen ak feneen ñu ngi koy fas yéene continuer di def ndax loolu yëpp sottee tiital la ci islam tiital la ci diine mais aussi tiital la ci Sénégal parce que fii bay ay ati at ku ñëw dama fekk liggéey bi teew ndax yaa ngi may jot ni yitte sëriñ bi ci entretien bi wax nga dëgg wax ngeen nag jumaa ji ngeen tàmbali ci seeni doole bopp ma ci gërëm bu baax Pape Abdou Kounta Euh, wax ngeen ma kër gi nga xam ne ci presque année mille neuf cent quarante cinq lañ ko tàmbali mu pare mille neuf cent cinquante cinq tey jii mu toll si ñu war ko yeesalaat jàppalewaat ko balaa muy am jafe-jafe waaw loolu nag ay liggéey la yoo xam ne dañ ci war a jàpp parce que suñu yéene la loolu sama programme bopp la kon damay ñaan yàlla mu kàttanal ma ba ma mën a mottali yéene yooyu yëpp ndax bu ma koy def kenn sant ma ko kenn ñaanu ma ko te ma jàpp ne lislaam bi ak diine ji am na nu ñu ko war a taxawee ndax même tubaab yi bu ñu fi nekkee nekkoon ay colonisateur jumaa yi fi jiitu ñoom ñoo ko tabax te damay ndar jumaa ba ñu fa njëkk a tabax 1825 dañ ko fondation El Hadj Omar Tall Cheikh Omarul moo ubbi jumaa ji plusieurs années après ndegam nag tubaab te jógee tugal ñoo mënoon def loolu ci seen jamono mastamaak ñun tey war nañ mën taxawu donc këru diine yi ay taxawu bi nag dafay laaj ñu si déggante ñu xam ne it du obligation gouvernement nit bu lay defal lu baax boo a nga ne jërëjëf boo mënul tam nga maandu ci waaye du force du par force wala ñun defal ngeen lii diw ñun amuñu lii dinañ dem ci rajo yi dinañ def lii yooyu yooyu man personnellement du loo xam ne dina ma yëngal trop ndax toujours dama xool rek lu yàlla soxla ak li nga xam ne man moom laa war a def ci li ma dënk ma def ko ma doo dafa am solo ñu xam ne état bi mu ngi góorgóorlu li ñuy def ci diine Sénégal amul benn gouvernement ci àdduna bi bu koy def amul. 365 jours sur 365 ministre de l'intérieur xam ne gouverneur yi préfet sous-préfet koo ci gis ma ngi daw ma ngi toppatoo CRD CDD CLD pour jàppale waa ngërëm yi ci seen bés. jàppale leen ci tànt yi jàppale leen ci dund bi la leen ci communication parce que rek li muy daw bés bu ne fu nekk ci Sénégal di ko couvrir te loolu effort lu yu bare bare bare donc loolu tam dañ koy def ak xol mu sedd parce que dañu jàpp ne bokk na ci lii tiitaru Sénégal ndax boo gisee Sénégal yu bëri xewe gu fi diine ji moo dëgër te xam-xam lal ko ndax ku gis tey fii kàddu yi ngeen di yëkkati nga xam ni ñu ñu tàggat ñooy wax bu doon ci système école wala université occidentale ay professeur de chaire ngeen di nekk parce que xam-xam bi xalaat bi kàllaama bi leer na leeraay boo xam ne ku jàngul mënul waxee noonu te ñun li ñuy jàng-jàng si système boobu saa ñu toog ak yéen di dinañu am ay jàngat Ahmed Bachir Lelek ma ne sama wolof ci moom laa ko jàngee boobu élève la te dégg ñu def journal parler toujours waaw ah, ba mu njëkk wax jambos ju tàng lex bu koy njëkkee du ko mujj la patate chaude ah. ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais surtout lépp solo mooy kàddu yi ngeen wax di ko jëlee ci lislaam ko jëlee ci farata wala sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ay enseignement yoo xam ne vraiment lu am am solo la loolu nag dañ ko war a préserver te pour ñu préserver ko foog ñu am ay dëkkuwaay ay bâtiment am ngeen fi bibliothèque donc lépp loo leen bind tey jii ci Njaasaan ak li ko wër ak diine ji mais di ko mën conserver des centaines d'années ku ñëw mën si jàng xam bu dee néegu ñax la fu benn ngelaw jógee safara yóbbu lépp daal di réer donc moo tax dafa am solo ñu am de bâtiments pour la protection du patrimoine immatériel waaw loolu yëpp nag dañu ci am jàngat moo tax ñu war a maintenir yi maa ngi xalaat xam naa ne maire yi amuñu doole mais peut-être avec gouvernement premier ministre dinañu xool dëkk yi nga xam ne def nañ fa investissement yu mel nii peut-être ñu am des dotations spéciales pour commune bi conseil départemental ñu ànd ak yéen ci équipe yi ngeen mën na jël mën na nekk ci njaboot yi mais ñu tàggat leen parce que mbir mu mel nii foog nga former ñu koy nettoyer ñu koy balaa ñu koy yàq ah foog nga former ñu yor groupe bi parce que gouvernement mën na fi toog toujours foog nga former courant bu coupé wala et cetera foog mu am lu mu bon bon. toll si juróomi nit ba ci fukki nit yoo xam ne seen liggéey mooy di saytu bërëb bi di ko toppatoo ni mu war a doxee ñu former leen ba pare xool ak ñoom maanaam lu ñu leen di fay pour que saa yoo ñëwee bërëb bi mën a nekk bërëb bu mucc ayib pale ba la nekk tey kër gu màgget la 1902 lañ ko tabax boo ñëwee tey da ngay fekk mu normal waaw ah, dara du ci day mel ni bañ ko doog a tabax loolu nag entretien moo koy def ak maintenance waaw mën nga am bâtiment bu def ñetti at ku fa ñëw gis miir yi xar peinture yi jaar fële courant bi du baax alors yooyu yëpp si entretien la donc dinañ ci liggéey pour jàppale communes yi ak conseil départementaux yi et puis xool aussi formation professionnelle xale yi ngeen di tàggat yu góor yu jigéen ñu jàngal leen le métier de l'hôtellerie ah, mu nu ñu toppatoo résidence yi incha allah daañu si taxaw bu baax a baax li ci des dégg naa ko mu jëm ci jumaa ji ak ci kër gële incha allah luñ ci mën rek daañu si taxaw pour euh, mottali yéene donc euh, waaye nag mënu moom daaneel sama kàddu te duñu santaat ak di ñaan sunu borom yokk leeru ki nga xam ne mooy xalif bi fi jógee di Cheikh moom bu Mouhamed Kounta yal na ko yàlla yokk taxawu yàlla yokk leeram te teg loxo si njaboot gi mu fi bàyyi di feddali rek sunu wëllëre ak xalif bi moom yàlla jàppale yokk wér-gu-yaram ci moom ci ngeen ma wax itam incha allah dinañ ci def ay pexe bu ci yàlla ànd kon kàddu yi loolu la woon rek di sant bu baax di gërëm